ngir bañ rek jàngoro bi di coronavirus nag law ci dëkk bi marché sam léegi tëj nañu ko ndogal loolu nag mu ngi bàyyeekoo ci mairie bu Fass Gueule Tapée Colobane ñoom jaaykat ya fay yëngu nag naxarlu ko. maanaam ñun moom toog nañu démb ñu ne marché bi du am to marché Sandaga laa jóge nii ba Petersen bu Tilleen bokk baan ñëpp ñu ngi jaay ñu aay ñu du ngeen jaay to jaay rek la ñu xam bañ juddoo ba léegi fii rek la ñu xam di jaay rek doomi réew mi lañu juddoo ci réew mi ah yor ci suñu njaboot ak suñuy ndey ak suñuy baay. gis nga la moindre des choses mairie waroon ko def ànd ceeg état bu Sénégal mooy jàppale jeunesse bi ni nga war a mën a jàppale jeunesse bi mooy tey li ngay yàqee saawaay nga dem ut ay masque comme def ni ñu def nii nga sensibiliser population bi parce que la président de la République son excellence Macky Sall aayul benn yoon nañ tëj yi luuma yi la wax mooy marché hebdomadaire les marchés hebdomadaires mooy fu nga xam ne nit ñi dañu fay rassembler ñenn ñi bàyyi ko ci localités yi différents yi ñëw dajee fa mën nañoo wàllante feebar bi jàngoro ji mais ñëw ànd seeg la complicité de nos sécurité vraiment ñëw di saccager di yàq di yàqal askan wi fii ay Palafouta nekkoon fii ay Malien nekkoon fi ay Guinée nekkoon fi ñu ñëpp ay citoyen lam daal ay Sénégal li dama ne yoon nag bu fi amee pour ñëpp la. ndogal li ni mel nag ci kàdduy mairie bi nag mënut woon ñàkk. on a sorti un arrêté portant à arrêt définitif euh, des, activités commerciales au niveau euh, du canal 4, du canal Gueltapé. Donc c'est à cause du coronavirus, c'est pour cela qu'on a pris cette décision-là. On est en train de voir si on ne va pas, en tout cas dans les trois jours à venir, fermer les marchés et les nettoyer. Donc c'est ça notre rôle et nous sommes là-dedans ñoom jaaykat yi nag lenn dong de lañ ci naqarlu liñ leen ñàkk yëgal nous leen dogal. lu nous maire tamit citation directe parce que ñun mais attention ñun ay nous nous ñun bu ñu nous fii jëm bu dee Europe la dañ naan dugg leen ci casino yi wala dugg leen ci li nga xam ne moom mooy moom yi wala nous yi ngeen lekkat bu ngeen fay dara. ñun rek ñu man dégguma information l'État a informé quand même pour l'ensemble des des marchés, l'ensemble, là où, où, les gens vont, c'est-à-dire les lieux publics, les lieux publics et les espaces. L'État a informé et c'est l'État qui, joue son rôle présentement. C'est vrai, on, est accompagné par l'État, c'est pour cela qu'on fait ce travail-là. coronavirus il y va de la santé de tout le monde, des populations, des vendeurs et des, gens qui viennent. Donc si on a un partenariat avec euh, euh, une société ou bien quelqu'un et qu'il y a danger, mais c'est normal qu'on réagisse. C'est ça qu'on est en train de faire. Maintenant, c'est très difficile pour eux, c'est vrai, mais il faut qu'ils comprennent aussi que l'État, c'est l'État. coronavirus moom euh, choléra bi moo ko gën a euh, garaaw fuuf to taxut mu deme nii dama defee ne xëy na ah cee am leneen loo xam ne nit ñi dañ ko waxul rek to xamuñu ko waaye ñun moom wax dëgg ñu ko noonu. aar lii pour yàq la saay ñëpp xam ne na maladie bi lu am la lu existe la comprendre nga ñun ñoo la man damaa protège dama ko jënd aller en France prothèse amu fa amu fa Emmanuel Macron wax na leen leen alors dinaa ut ay prothèse pour jox leen ñun suñu état lan la def damay tëj marché Macky Sall ne ay ndaw mairie bu fas Gueule Tapée Colobane nag ci ndimbalu police may benn yoon jaaykat yi ñu wëyal seen liggéey noppi nañu nag ngir wëyal saytu bi file ba korok ñuy yëkkati bi leen dogal